li amri wa wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu mbokki jullit juliti assalamu mbokki taaliba yi nongi ngi am mbégte dellu si waat ak yéen niñ koy defee dimanche bu jot ci waxtu yi ci sen euh, radio xasida online fi ci diaspora ngeen ci ànd ak sen xarit seen mbokkum taalibe Pape Makhtar Tall fële ca Parme euh, ci geneen wàll wi seen ndongo Pape Demba Dia fii ci Pontedera ci xarale bi sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall euh, di ziar ñëpp di jiital ci ziar bi suñu yaakaar teeg ëllëg sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi euh, ba nga xam ni liggéey boobu moom moom la yàlla dogal tey jii mu teewal fi sëriñ Touba yéene jim ci am moom mottali ko waaye it di ñaanal bépp seexi sëriñ Tuubaa ak kilifa diine yi nga xam ni ñoom ñoo ñu eh, wër eh, bu ñu limee kilifa yu mag yi rek mel na ni eh, tudd nañu ñëpp ku lim jum di ziyaar it mbokk yi nga xam ni ñu nag ñoom ñoo bokk senegal yàlla def ñu nekk ci beneen diine waaye bokk ci giiruk axlul kitaab mu di suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci communauté chrétienne bi ñoom it ñu ngi leen di ziar ndax bari nañ ci ay mbokk yoo xam ni ñu nag ñoom ñooy bokk euh, euh, fii ci dëkk bi nekk ci diaspora bi waaye it bokkaat euh, bokk ay yëngu-yëngu Euh, moo xam ay association moo xam liggéey moo xam dëkk moo xam lu mu mënti doon kon euh, ngi ngi ziar ñëpp waaye it di ziar suñu mbokk yi nga xam ni ñoom la ñu bokkal télé bi rajo bi astafurlah bu ñu euh, ci jiitalee sëriñ Mouhamadan Mbacke teg ci sëñ Ibrahima Ndiaye rek mel na ni tudd nañu ñëpp ñu joxal ñu ko séddaleel ñu ko mbooleem e, mbokk moo xam ni yaa ngi ci biir e, rajo bi di ziar yi sunu xarit sunu sunu sunu doomu ndey El Hadj Cheikh Mbacke Mbuub Géwélu Xaadimu Rasuul di ko wax ni ko namm nañ ko e, dimanche bi weesu ndeysaan yàlla dogal ñu ñuy waxtaan sujet bu am solo mu dugg ànd seeg ñun Euh, euh, li ñuy wax rek euh, ba Sénégal <laughs> ndeysaan joxe contribution loolu lu am solo la di ziarit mbokk yi nga xam ni daanaka dimanche bu jot ñu nag ñoom daanaka buñ la gisee nga dugg rek ñu taal seen rajo sëñ Baro Milan maa ngi koy siyaar sëñ mbokk yi nga xam ni daanaka at dimanche waxtu wi rek lañuy ñuy xaar léeg-léeg sax ndeysaan yàlla day dogal ñu am euh, euh, ay gàllankoor tek retransmission waaye su boobaa da gis ñu woola di la laaj lu tax euh, maanaam nekku leen direct kon ñu ngi ziar mbokk yëpp xanaa rek damay jox sëñ Pape Moxtaar mu dugg nuyoo ñu doog a tàmbali sëñ sëñ Pape bisimilah. jërëjëf sëñ Pape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. taala wa barakatuhu eh, ginaaw bu ñu sante yàlla julli ya eh, ci sangu-sang yi ñu ngi sant bu baax sëriñ tuuba sëñ muntaxa bachir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ànd ak wér di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci bépp loxo kilifa diine ak kilifa aada ak fu nu mënti ne ci àdduna bi di nuyu bu baax a baax baax sunu mbokk auditeur yi eh, ndax kiy wax kiy déglu lay bëgg di nuyu nag ak ziar sunu jëwriñ yi nga xamante ni ñoo ne ci rajo bi sëñ mahmadan sëñ ibrahima ak sunu technicien bay fall moom nga xam ne du tàyyi di leen ziar bu baax baax di leen dokkeel eh, di nuyu nag sunu sunu jëwriñ sunu xarit elage cheikh mbacke mbub géewul khadim rasul di ko ñaanal yàlla moom it euh, li mu dëkkmal ci liggéeyam yàlla yombalal ko ko oyofal ko ko lool saa su ne nag mi ñuy bàyyi xel suñ pap ni nga ko waxee rek ndax dimanche passé vraiment ñëw na bokk ak ñun plateau bi euh, loolu mooy wane ni newu fi waaye xel maa ngi fi euh, ñu koy siyaar bu baax ndax ñun bu ñu ñemee sax xuus dëgg-dëgg moo ñu tax a ñeme di nuyu bu baax nag suma xarit sëñ Ablaye Eh, keroog wax dëgg yàlla eh, def na émission bu bu neex sax bu macha allah tubaarkàlla eh, ku am doon am kàllaama macha allah ñu koy ñaanal di ko ziar moom it vraiment. xanaa gàttal rek sëñ Pape ndax xam naa ni li duuf ci nag bi yëpp du xaj cin li. Mm-hmm. ndax ñun moom comme yàlla dogal na dañuy wéy ci actu actualité. dëkk bi moom dafa mel ni semaine bi li fiy rot moom xam naa ni bu doon ay xeer dana dana diis lool ndax saa su ne moom liy wadd bari na lool. Mm-hmm. Eh, te it comme mbokk auditeurs yi dañuy namm eh, wax dëgg yàlla ñu ñu leen di gindi. moo tax it eh, ci biir semaine bi ñun du ñu def ak len suñu wareef du lenn lu dul lu nu taataan rek. ñëw mm-hmm. baaxee ko ak ñoom ak fu nu mënti nekk ci àdduna bi ñuy fàttali rek ni a ah, émission bi moom di nga ko mën a déglu ci facebook bi di ko déglu ci youtube bi sénégal it di ko déglu ci rajo yi eh, kon mbokk talibé yi nañ ci nañ ci téwlu bu baaxa baax ndax instrument la bo xamanteni ni wax dëgg yàlla eh, information war tuttum ranké ci sunu ci ñun ci sunu biir ndax lanu jafe won demb tay ji yomb nañu kon nañ ko utiliser rek ci anam bi ko wara utiliser ci kàttu yalla liñ ci bëgg yépp yalla mën ko yombal jërëjëf jërëjëf sëñ Pape Mokhtar euh, jërëjëf mbokki auditeurs yi euh, di fàttali rek ni yéen ngi déglu seen émission diaspora fii ci rajo Xassida online tey di le 9 février 2020 euh, ñuy ziar suñu jëriñ sëñ Ablaye Diop moom it ndeysaan ni nga ko waxee rek ci yaatoom dimanche bi ndeysaan def nañ fi waxtaan bu am solo. Euh, doon waxtaan ci xew-xew yi nga xam ne rek moo moo mooy actualité Italie ci noonu daanaka la ñuy continuer rek euh, ndax semaine bi daanaka ñëpp dégg nañu euh, Italie xew-xew yi fi nekk maanaam li fi gën a bees daanaka mm, boo ko xoolee mu di sénégalais yi nga xam ne ak immigré yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi te yoruñu këyit eh, ñu neex a nax gaaw a jaaxle loo leen wax ñu gëm ko daanaka mën naa ni ba sax ñi nekk ci yeneen dëkk yi ndax boo ko xoolee jamono ji diggante Espagne ak Italie eh, eh, faafu la Sénégalais yëpp daanaka lëmbee ndax seen gouvernement yi yàlla dafa dogal ñu wax éventualité boo xam ni maanaam probabilité ak seen bëgg-bëgg ni ñoom kat jamono ji ñi ngi am yéene bëgg a maye ay kayit loolu nag tax maanaam boo xoolee ci YouTube yi boo xoolee ci WhatsApp yi da ngay dégg ay audio yoo xam ni daanaka daf lay jaaxal euh, ñun sénégalais nag nekk bokk ci ñi nga xam ni daanaka mën naa ni eh, eh, ñoo gën a neex a nax ci communauté yi ndax fi mu ne nii daanaka ab euh, Pap Demba bu ñëwee rek mën naa ni yore cartable la euh, euh, nit ñi dañ koy rang duñu xam fu mu jógee du ñu xam histoire am ñu xam lu muy liggéey du ñu xam fan la apo jaarewu loolu nag nekk loo xam ni ak mu jot saa yu suñuy wax waxi kayit dañuy gis ñu bari ci la ñu amee problème ndax da gis ay nit yoo xam ni. dañuy dem joxe seeni seeni këyit généralité ñu dugalal leen ci ay dugal nax yoo xam ni daanaka daf leen di gàllankoor ba bu ñu demee ba war a mën a am këyit du ñu mën a am këyit loolu nag euh, ñu bëggoon ci lancer cri d'alarme boo xam ni euh, nit ñi ubbi seen xel euh, ñu xamal leen ni leen éventualité la këyit fii ci mois bi mënta nekk ndax parcours bi këyit war a jaar yëpp déggaguñ ko bokk ci biir euh, Italie euh, euh, ma bëggoon rek tey jii suñ pap nga jox ci sa xalaat maître tam def ci benn mise en garde ba sénégalais yi nekk ci diaspora bi ñi nekk ci yeneen dëkk yi bëgg paas di ñëw ndax da gis léeg-léeg sénégalais bu nekkee Portugal wala Espagne wala France ndeysaan amul këyit bu déggee ni ñu ngi may fii këyit rek day daw ñëw dépenser xaalis bu ñëwee ku mu njëkk a taseel bu ko ne mën naa lijjanti jox ma nangam mu commencé dugg ci biir joxe ay kayitam mm-hmm. kayitam ci ay gàllankoor ba xëy na bu gisee bunt dootu ci mën a dugg sëñ Pape kayit yi ngay dégg ban xalaat nga ci am ak ban ban gis-gis nga ci am. <laughs> xanaa ab dégg rek laa ci am <laughs> ni eh, gis nga ñun sénégalais yi ñun ñooy defaral suñu bopp eh, loi. daanaka yeneen immigré yi sax ñoom dañuy déglu sénégalais yi pour que sénégalais yi euh, takk rajo yi ratatati ci ci Facebook beeg euh, WhatsApp yeeg nangam ak nangam ba nga xamante ni day dana dem ba àgg président de la république sax ne ah kon sénégalais yi nii lañ ko bëggee léegi nañ ko defee lii maanaam xam nga Italie nekk na dëkk boo xamante ni waxuma Italie sax même yeneen dëkk ñun bu ma yaboo ni abale këyit bu ma yeboo ci askanu sénégalais la la la tàmbalee dem nañu ba jamono dikk dàpp nu ba tubaab yi découvrir loolu ba ci agence yi sax booy dem di déposer ji pour liggéey dañ lay laaj passeport loolu dem ba yàqu ndax suñu wax ñu dem ba maanaam boo bëggee jur sa doomu euh, doomu rakk wala doomu mag nga bëgg koo jàppale bëgg koo dimbali bëgg koo indi sa wet pour mu daan dooleem pour mën a dimbali way juram dem nañu ba sunuy wax sunu làmmiñ ak sunu rajo yi ñuy takk àgg na ba léegi booy indi nit sax dañ lay defal examen DNA damay jéggalu nag ndax ci euh, man man Sénégal laa ni ñëpp waaye yëf yi bu amee daay war dañoo war di taxaw tuuti di xoolaat suñu bopp kon war nañoo toogaat tuuti yeddaat suñu bopp ci yu bari euh, dégg nañu nit wax yéeneem mais yéene du réalité quand même parce que ku ne xam na ni immigration dafa nekk benn thème boo xamante ni ces derniers dix ans mooy thème bi ñu gën a discuter ci Italie mooy thème bi nga xamante ni mooy fal mooy folli ndax Salvini immigration la utiliser ba falu fii di immigration moo ko daaneel ndax ñàkk koo mën a gouverner léegi nak buñu démé ba nga xamanténi ni euh, ñaari euh, ñaari coloration politique and nañu di gouverner réew mi ñu jël kenn tek ko comme ministère de l'intérieur mu xam situation bi fi nek xam ni amon na loi bu ñuy wax bo ci fini amon na ay clandestins yu mu créé mu tollon ci say bu takku tollu presque plus de 400000 personnes décreto legge eh, sicurezza bu eh, legge sicurezza bu Salvini bi ñëw indeeti bëgg a construire beneen eh, stratégie boo xamante ni ak mécanisme boo xam ni dafay balancer waat xale yi ci clandestinité mooy maanaam xale yi dugg ci gaal yi ñëw di dem commission ñu ñu ñu dàq leen ñu defaat recours ñu dàq leen ñu am ay permis séjour six mois yoo xamante ni pratiquement pour ñu renouveler ko c'est un problème que richevous te yi ñuy yore pour déposer ci liggéey euh, agence yeeg yooyu sax dootuñu ko jël far xam nga kooku mm, mën nañ bañ ni clandestin la waaye dafa nekk en situation irrégulière parce que situation irrégulière weesuwul ñàkk stabilité weesuwul nga bëgg a liggéey mënuloo liggéey weesuwul nga yor këyit goo xamante ni mën na la may nga toog fii buñ la contrôler bàyyi la nga dem waaye mënoo cee liggéey mënoo cee def dara léegi nag ñoom bu ñu xoolee gouvernement bi xool ni gis situation boobu mi ngi xaw a doy waar ñu gis parti social yi muy ci jell ci lu wil def nañu ay euh, ay ricaamo ba tàyyi ci gouvernement bi ñoom bu ñu toogee le ministre en personne toog ni man de sama yéene mooy ah ñu def benn ya mais waxul nii lañ koy defee waxul nee lañ koy defee waxul condition yii la waxul boo amee këyit bi ak këyit ba ca des danañ la may wala duñu la may nangam ak nangam dafa annoncé rek yéeneem léegi nag boo tourné retourné waat nga gis sénégalais yi di jël ay vocal di jël ay vidéo di dugg ci euh, YouTube di ci balancé ay ay ay ay dañuy maye këyit ba noppi la ma ca gën a def ay retaan mooy euh, non seulement duñu ko génnee rek waaye dañuy wax sax seen tur ak seen sant donc benn paptaal dana fexe ba lijjanti Ablaye Seyme wala Sayer Cissé mi fan la dëkk ak nan laay def ba jot ko ak ku ko xam ma lijjanti ko pour moom mu wax ma gindi ma ak nag laay def ba jokkook moom pour mën koo jox la ma koy jox pour moom mu jàppale ma ci kayit yi donc nañu teey te def ndànk ndax immigration ñun rek neewuñu fi ñun nous sommes la quatorzième communauté bi fi gën a peuplé quatorzième donc am na treize communautés yu ñu fi jiitu ñoo xam ne ñoo ñu gën a takku fuuf yu nek fi te yëngawutu yëngatuwuñ ci waxuñ ci ñun ñu bëgg ci wax sama waxu demb rek lay delu ci waat ñooy ci communauté yi fi gëna neew mi ñu fi gëna bëri bëri donc nañu tey te def ndank te boy xol waaji nga xamanteni publier nako ci euh youtube bi man bima ko xolé dama ni mi ki euh bo bo bo dawalé sa xel touti rek di nga ni ki confusion lay def parce que boo xoolee décréto flusso mom la génnee pratiquement ci euh, ci ki bi te pourtant te pourtant pap fi mu ne nii am na man waaw am ñu ñoo xamni dañuy wax ni man dama mëna alarmé hmm xam nga sénégalais ku koy wax lu ko mm-hmm. neex rek la bëgg waaw tey ji amna ñuma wax ni len ni len koku limi wax tegu ko ci xam-xam déedéet waaw ah, ma nit waxtama ginaaw ni man dama mëna alarmer Mm-hmm. parce que du ma wax euh, j'ai pas tendance à leur dire ce qui leur plaît. Mm-hmm. waaw xam nga rek maa ngi jégalu ci dog bi. waaw waaw gaa ñi lii leen arrangé rek parfois moom la ñuy bëgg a dégg ci yow waaye nag ñu nit du wax lu xamul parce que tam yàlla dogal na dañoo nekk ci ay structures yoo xamante ni gouvernement jox nañu cër cër goo xamante ni euh, bala muy def yenn yi dana ñu yëkkal te ñun nit ci le même instant danañ ñu ko yónnee ñun ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ci structure yooyu parce que noonu lay doxee loolu moom mooy suñu collaboration ak gouvernement yi et par ailleurs ma profito ci annoncé sax ni déjà am na benn plateforme boo xamante ni sur l'immigration parti social yi liggéey nañ ci plateforme bi man mi ngi sama bureau ma teg sama kaw bureau stamparé naa ko àjjuma bii laa ko stamparé teg ko Mm-hmm. semaine bii la plateforme boobu war a dem ci euh, ci parti social yi yëpp mu mm-hmm. war a dem ci ci ministère yi mm-hmm. donc cela veut dire que même ñun ci plateforme boobu ñu def plateforme bi dañ ci wax carrément situation irrégulière bi nga xamante ni am na euh, tey tey ma ma ma ma wax la euh, campagne io ak kool bi sànq maa ngi liir ñu ngi ñu ngi wax ni amna ben sentence bu génn wax ni euh, richiedente asilo yi ñom duñu clandestin. mais duñu ay clandestin. waaw motax tax ma mo def ci sama ci sama publier ci sama Facebook que ni maintenant comme duñu clandestin ça veut dire que dañu nekk en situation irrégulière. Mm-hmm. parce que tam ñu ngi liggéey fay ay taxes nous amuñu permis su bu permettre pour que nous renouveler ko à temps euh, conditions yu ko renouveler parce que toujours nous ngi koy lëkkale commission. Mm-hmm. rek commission bi. donc il faudrait une sana sanatoria pour mën régulariser seen situation. Mm-hmm. léegi ki nga xam ni ma ngay Espagne di parce que dégg na ma wax bu ñëwee fii lu mu fiy fekk. Mm-hmm. daf fi fekk loo kenn xamagul ci ban tànk lañ

dafa fa melni nga dem ci site ministère de l'intérieur, intérieur. Mhm. registraré wu ubbi am sa password ak sa user. Mhm. dem def sa def sa euh, demande flux. Mhm. ministère daf lay tontu jox la receveur. mu ne le déposé naa la. déposer la taxul nga am. parce que critère yi a, laaj. mënoo ko répondre da ngay gis ku dugal par exemple.

déglu mhm. association yi parce que tam yaakaar naa ni association yi war nañ ci jouer rôle bu am solo association yi mhm. ñoo war a ñëw nekk euh, mhm. ci ay waxtaan euh, ñi ñi ñi ñiy lancé maanaam cri d'alarme yi woote woote woote réunion man dama gëm ni jamono ji dëkk bu nekk say président war nañu woote euh, ni leen nit ñi kat ñun kat am nañu yaakaar te loolu moo am ñi ngi am yaakaar mais yaakaar boobu yaakaar taxul Euh, mu nekk loo xam ni dafa matérialiser euh, ni nit ñi kat waaj leen ñi amagul mm-hmm. passeport ñu daw dem defari passeport parce que pour le moment mm-hmm. loolu rek mu am solo fexe ba fu mm-hmm. ñuy dugalal nga yor sa passeport ndax boo yorul sa passeport munuloo mënuloo mënuloo mënuloo munuloo dugal vraiment ndax passeport moom euh, amul lenn lu ñuy laaj clandestin bi lu dul passeport léegi-léeg nag ñu laaj la ay preuve nangam pour le moment ndax preuve jamono yi ñu ko daan laaj moy jamono yi nga ni par exemple peut-être que vous mën nañ ni par exemple euh, euh, waxtu bi ñi projet de loi à partir de tel il faut nga démontrer boudé boudé ci dëkk bi parce que dañu ban mécanisme la vous hmm. flux sanatoria flux bobu da ngay Sénégal mais bu dee sanatoria bi ci biir dëkk bi en général dañuy laaj ay preuves yuy démontrer ni bi ñuy hmm. projet de loi bi ci dëkk bi la la fekk. donc yooyu yooyu la ñu mën a wax waaye amul kenn ku la mën a wax ndax gën ngaa tuuti parcours bi dana def ñaari weer. danañ ko hmm. programmer euh, dinañ dinañ programmer maanaam ministère euh, mini euh, conseil des ministres. ñu hmm. ratifié ko buñ ko ratifié yóbbu ko Sénat Sénat voté ko ñu yóbbu ko caméra. caméra mhm. voté ko defe naa ñu doog ko yóbbu euh, dellowaat ko conseil des ministres mhm. ba buñ ko jëlee conseil des ministres yóbbul ko président de la république mu promulgué ko mu doog a nekk mhm. loi kon bu ñu bëggee taxaw nii mars bii la wala février ah yàlla de mën na def ay miracle waaye nag lu du nekk lu lu yomb te yaakaar naa ni gars yi am nañ yeneen priorité jamono ji ndax jamono ji crise économique bi fi nekk ak crise sanitaire bi moom moo na a nekk sunu sunu sunu deuxième deuxième point ci ordre du jour mhm. bi euh, yaakaar naa ni gaay yi amuñu fi lu ñuy daw ba wara a fi ben loi bo xamni loi bu bo bu boo xam dañ koy def danaka parce que bu bëggee jaar ci 30 jours moy danaka loi bi du taxaw fenn te it dañ koy def lejje marathon pour mu mëna a xam nga hmm. yooyu pour ñu def ko il faut day dem dugaat fii bu ñu modifier dara ñu war mu nekk ay programmation yoo xam ne dañuy fixer date yi déjà mais boo leen hmm. xoolee fii ak mars man gisuma ñu voté fii sénatoria ah gisuguma mais sëñ Pape hmm. sëñ Pape ñun dañuy fàtte ni on est gouverné par deux structures politiques ñoo xamante ni il n'est pas dit que ñoo bokk gis-gis ci immigration dañuy fàtte ni au niveau du Sénat au niveau du Parlement yëpp dafa am ay ñu euh, mu tudde di sax opposant mm-hmm. dañuy fàtte bu demee caméra war a dem Sénat wala mu jóge Sénat war a dem euh, delluwaat euh, caméra vice versa virgule buñ ko ci changé dañ koy delloowaat vote ji waat mm-hmm. mais Italie instant bi nii li nga wax rek jamono bii ñu toll ñun loolu ñu li ñu war a def suñu wareef ñun fiñ ci toll mooy que les présidents d'associations, les associations ñu wara tok manam de promouvoir c'est-à-dire ñun dañu wara promouvoir lolu nga xamanteni la Lamor wax nako hmm la Diézy wax na yéeneem ne bu doon sama sago ñu maye këyit peut-être mom moy régler cette situation irrégulière mm-hmm. ñun lañu waroon moy, à travers les associations ñu créer ay waxtaan wax suñuy ñooñ ne leen ah lii de ministre bi wax na ko léegi nag ñun ci sunu biir am nañu ay xale yoo xam ni vraiment ñu ngi fii te it nañu jël suñuy matuwaay bu ko defee dara duñu bett ndax ñun saa su mhm. ne ñun mhm. dañuy bàyyi ba jaan ci romb rek ñuy dóor ci watat gi mhm. lu ne rek ñoo ci mujjee mujjee mujjee dal moo tax lépp dañuy bett ndax passeport boobu ñuy wax lu nu war a discuter la Parce que je pense que même les autorités consulaires wala euh, diplomatiques yi fi nekk amoon nañu ay problème pour jox passeport xale yi jaar ci gaal gi. Mhm. déjà ah, xam nga ñu bari amaguñu carte d'identité. ñu bari amuñu ko donc xam nga ñun am déjà ben problème boo xamante ni ci suñu biir war nañ koo lijjanti à avant ñuy egg ci tubaab bi dana nu may wala du nu may. Mhm, mhm mais quoi, c'est à discuter au niveau des associations parce que les présidents d'associations, dañuy dem di def seeni réunion ak euh, euh, le consul ou bien l'ambassadeur et cetera donc lolo, ben plateforme la boo xamante ni war nañoo def réunion au au à la sortie de cette réunion war nañu mën dem teg ambassadeur bi wala teg ci consul bi ne sénégalais vraiment liñu bëgg moy ngeen dimbali ñu jappalé ñu vu que Italie talal na ben loxo. génnee lii wax na lii ñun dañoo bëgg waaj balaa ñuy àgg ci loolu. Mm-hmm. ngeen dimbali ñu xale yi ngeen defaral leen passeport pour que ñu régulier. Mm-hmm. parce xale yooyu ñuy wax ay euh, duñ leen defal passeport nangam nangam bu ci kenn defee naka sudul noonu askan wi yëpp lañuy ñuy tudd ah. Mm-hmm. kon donc ñun à notre niveau li tubaab di wax charité bien ordonnée commence par soi-même à notre niveau war nañu commencer di discuter loolu di ci waxtaan pour que suñu autorité yi mën a teel a préparer wu tamit ci loolu. <coughs> dëgg la 98 98 bi ñuy demander ay ay ay euh, ay preuve ak ay. waa ay sauf conduite ak ay kenn xamul. mais euh, Rome dafa daan fees del ba mujj gi policier tubaab yi sax ñoom ñoo fa doon ñëw. Mm-hmm yi ñuy demandé carte consulaire à euh, date anticipée yeeg mm-hmm. pourtant dañ ñu ko défaralon période bobu parce que waaw mais nak mais nak période bobu on avait une personne euh, euh, extraordinaire yalla na yàlla yokk ay leeram. waaw loolu dëgg la. dëgg parce qu'il a pris ses responsabilités personnelles. effectivement xam nga xam nga léeg-léeg am ay directives yu lay jox. Mm-hmm. waaye nag. nit ki deug deug day am foo bu fa tolo mom moy jël ay responsabilité mom mhm. ndaysan euh ñu ma ngi ku ndaysan réunion bi mu def hmm ci la wax ni man sama bureau tëjuma hmm kep ku bëgg lu jub dama la ci taxawal waye nak lu mhm. dënk du ma ko tax vraiment euh, euh amna ci sax gis ngeen liko ci top yépp euh lu baax rek la ci jublu won te it lu baax lolu amna ko Mm-hmm. mais mais mais mais vieux dama la bëgg jox benn nouvelle. Mm-hmm. xaw ma ndax yëg nga ko waa Espagne raw nañ ñu de. waa Espagne. lu ma jaaxal. Mm-hmm. ndax euh, le deux bi passé. ba le sept. yaakaaroon naa ni yëg nga ko. Euh, euh, dañu Espagne ak Sénégal dañu amoon table technique boo xam ni dañ doon discuter ci wàllu sécurité sociale. signé nañu une convention. Mm-hmm. ba wàllu retraite yi def nañ ci pas bu am solo. Mm-hmm. Euh, mu amoon euh, madame, wa wa wa délégation du Sénégal en direction du Sénégal et de l'extérieur. Euh, mm-hmm. mais DST ce c'est c'est technique ou c'est politique pas. c'est politique. mais est-ce que DST war na mën a ci table de l'ol dal j'aimerais bien avoir euh, mhm. wa Espagne buñ ma ci mune buñ ma ci euh, gindi ndax mhm. euh, le 2-7 le février deuxième round négociation convention sécurité sociale entre royaume bu Espagne le Sénégal mhm. vraiment la nañu manam ligue technique bi yëpp bouclé nañ ko actuellement léegi li ci dess presque signature Mm-hmm. Euh, léegi nag euh, délégation interministérielle bi ñëwoon nañu. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. DGTSS. def naa Karim Cissé. ak maanaam autorité IPRES. ak caisse de sécurité sociale. ambassadeur Mariane Sy moo présidé woon rencontre yi. mais man. ba léegi déggaguma ñu ne par exemple représentant des. ci ci délégation ñu lim ci représentation des sénégalais de de l'Espagne, Espagne. waaw mais nag mhm. ñun ñun ñun lan la ñuy signeel sëñ bi. sëñ bi xam nga euh, man d'une part damay wax ni euh, loolu xëy na benn jéego la parce que xëy na xamuñu kan moo représenté sénégalais yi parce que yàgg naa wax fii Séné euh, Sénégal son autorité, yi dañuy divertir ci ay commission mixte man gëwuma man gëwuma commission mixte xam nga mm-hmm. parce que bu faites ni da nga bëgg créer une commission mixte. cette commission là mënul nekk jamais de la vie ñu toog sur table mënul nekk parce que cette commission mixte ye mënul yam fii rek en Europe. parce que Pape Demba mën na liggéey Côte d'Ivoire fay fa ay taxes. Mm-hmm. en Côte d'Ivoire jaar Brésil jóge Brésil soog a jaar fii. Mm-hmm. mais Pape Demba boo ko créer cette commission mixte il faut que nga mettre en compte même la euh, la diaspora africaine. Mhm. donc cette commission man gëwuma ko yàgg naa ko wax fii mës nañ fi def ben émission ak honorable Nango mou, muy muy reprocher la commission mix, ma ne man gëwuma loolu man lima ma gëm mooy ñi nekk Italie mhm. que le Sénégal jóg ñëw taxaw ñëw discuter pour ñu nekk Italie ñi nekk Espagne Sénégal jóg ñëw discuter pour ñu nekk Espagne mhm. léegi nag yow le en tant que sénégalais loi italienne may na la bu fekkente ni da nga dem Espagne nga liggéey fa nga demander kuumuloo di euh, kuumuloo di comment comment ça contributi yi ñu indil la ko fii mhm. fii euh, patronat yi mën nañ la ko demandeel Espagne ñëw versel la ko fii ki mhm, mhm. nga nekk donc man gëwuma commission eh, cette commission mixte là man li ma gëm mooy Sénégal dañu war a déplacé wu ñu créer benn structure boo xamante ni à travers sunu sunu sunu syndicat yi nekk foofu Euh, le gouvernement euh, ak euh, ñi nga xamante ni ñoo ngank kiiw euh, Sénégal de l'extérieur et cetera mhm. ñu ñew fi ñu top ñu waxtaan ñun ci suñu biir ba paré bu ñu waxtaanee nak ñu yab leen ñu yab leen voilà ñu yab leen bu ko défé ñom ñoom danañu yoré ay éléments ak ay instruments nécessaires yo xamanteni ni utile pour que ñu mëna mëna mën ak ñoñu avec notre présence nak parce que tam man doo ma luma xamul de boo ma signalé ma xamul rajo yeeg télé yi danañ ma dégg parce que nak bama koy liggéey tàgguma la ba koy liggéey c'est la même chose surtout secrétariat bi demoon Sénégal ba léegi xamuñu lu mu fa def voilà donc euh, c'est-à-dire il faut que il faut que ñu ñu génn ci benn dynamique tuba bi ñoo ñu gëna soxla tuba bi ils ont besoin d'une main d'œuvre mm-hmm ils ont besoin aussi en présence au niveau de l'Afrique surtout Sénégal de bi ñuy wax am na échange yoo xamante dañ ko dépassé dafa démodé échange yooyu bu njëkk yow africain bi yow yaa daan soxla say doom génn mais tey ji yow africain bi bo, gëmee sa bopp soxlaatuloo loolu man loolu laa gëm moo tax bi ma les Ivoiriens ils ont signé ben ben traité à italien yi non euh, dama c'est c'est normal. Mais, mais pas. Pape, ci trois points nga c'est normal pour le terrorisme mais terrorisme tu vois, nous ñu le terrorisme mais <laughs> pourquoi may jël ay accord man à ko ak à l'extérieur sur le terrorisme <laughs> pourquoi may jël ay accord de signer rapatriement est-ce que qui fi signer rapatriement bi xam ni moom naka la ñuy euh, rapatrier doomam est-ce que xam na ko ci yan moyen la ñuy rapatrier doomam est-ce que mhm. xam na moyen yi ñuy rapatrier doomam moom mooy moyen yi nga xamante ni yeneen doomam yi ñu ngi renouveler seen séjour di fay xaalis boo xamante ni dafa waroon dellu ci ñoom ci intégration par contre ñu ngi jël xaalis boobu di ko yóbbu ci rapatriement est-ce que kooku mhm. xam na loolu mhm. donc il faut que ñuy am raison garder tuuti man je pense que ces Ivoiriens là bi fekkee bi ñuy signé ji affaire boobu ils n'ont pas euh, pensé à beaucoup de choses. xamuñu lu mais mais mais bul ne ces Ivoiriens. waaw. Euh, euh, yow xam nga li xew. Euh, Ouattara maanaam il est au solde. c'est le mm-hmm. préfet Madame, Danaka mom day des signé loo xam ni moom kenn mënu mm-hmm. ndax bu ni CFA mooy monnaie bi gën valable ñu toogaat ñetti weer mu ne ECO mi ngi ñëw. il se contredit comme xam nga bu waxee day soppeeku kenn munta wax lépp kenn munta wax lépp nañu <laughs> nañu noppi rek kilifa jàmbur la waaye moom euh, euh, defe naa ni li li Côte d'Ivoire signé moom rek moo ko ñeme signé après kenn ñeme ko signé ah man de accord signé keneen du signé en tout cas accord boobu moom tiital na ma te euh, man li may wax rek waxtu gi yàlla accord yooyu man mii ñaan naa yàlla Eh, dellu sama dëkk pour jariñ sama dëkk mm-hmm. ci li ma xam-xam bi ma yàlla may ci li may def waaw donc ñaanuma yàlla nag nit di ma signé loo xamante ni xaw ma ko wu ko ma ko signé nit danaa taxaw wax ko parce que tam kenn kenn moomu ma ganaaru kenn nenu ma mm-hmm. danaa taxaw wax ko télé bu ma taxaw dinaa ko wax rajo bu ma taxaw danaa ko waxit mm-hmm. danaa porter sama sama sama sama banjeera ci euh, parce que ñàkk a say dom la dal a mais quand même parce que ñun on est des citoyens quand même ay citoyens sénégalais Nous, ñun am fi Sénégal lañ koy am Sénégal lañ ko te dañuy contribuer par euh, par rapport au sénégalais. Mm-hmm. di contribuer fi ñu mais sëñ bi mëno ma la ma Sénégal bëgguma ko man sama épanouissement je ko am Sénégal ay choono l'a fay am mënuma fa investir ba am fa jam. parce que euh, ñeneen nga gëna a privilégié que que man mm-hmm. mais nga retourner bëgg ma compliquer ma situation là où man j'ai des problèmes même pour investir au Sénégal pour naka lay wajalé samay doom mais ñun ñi kenn ku ci nekk ci ñun ñu yalla say doom màggatee fi wala mu dugg ci fabrique yi di fi opéra yi mm-hmm. dëkk ba bu amoon nu mu mel ak am mécanisme ak taxawaay boo xamante ni war na ko am ñu ñëpp kenn ku ci nekk di nga créer loo xamante ni vraiment di nga waaj pour dem mais loolu dafay am lu koy conditionné. Mm-hmm. dafay am lu koy conditionné l' ambassade du Séné euh, euh, d' Italie boobu nekk Sénégal bépp doomu italien bu feebar sur le plan social soxla taxawaay dañuy taal seen oto jóg dem seeti ko. Mm-hmm. dañuy taal seen oto bu laajee xaalis dañ koy yëkkati def ko ci ñoom. xam naa xam naa xam naa dafa mel ni yaa ngi dugg sax ci ñaareelu tomb bi. Ah. Eh, ndax ndax ndax li ñuy wax wax mooy indi wax yaa ngi wax mooy mais mel ne ni yaa ngi direeku ci ñaareelu tomb bi. ndax tey ci mm, bi ñu bëggoon waxtaanee mooy xew-xew bi nga xam ni moo lëmbee àdduna bi yëpp mu di eh, xeetu virus bu bees boobu génn fële eh, ci Chine ñu tuddee ko coronavirus. ba léegi rek dafay duggaat ci temu diaspora bi dama lay joxaat kàddu bi Euh, ñu seetlu fan yi ndeysaan ba tey rek Chine euh, defaat na beneen communiqué envoyé ko OMS xamal leen ni leen virus bi ëpp na leen loxo loolu nag il faut ñu waxtaan ci ndax mm. euh, li ñuy wax du ay fake news nit da ngay dem nga dem dugg ci siitu OMS mm. da nga gis actuellement li commencé xew mm. da nekkul nag ndax SARS ba ñu jaaxle woon nga xam ni moo moo indi woon crise économique bi daanaka trois cent personnes la la la jotoon a faat. Mm-hmm. Euh, virus bi déjà rek mi ngi ci neuf cent et quelques. te mm-hmm. xamaguñu exactement exactement parce que dafa bari lu Chine waxul. Euh, mm-hmm. ci ci ci feebar boobu ndax dafa bari lu ñu lu lu ñu nëbb pour bañoon a xam nga rek maanaam léegi adduna bi. ku ci nekk da ngay am say mbootu bopp yooyu tee mm. eh, xew bi am ñëpp commencé jël ndeysaan eh, suñu dëkk ñu am fa ay étudiants. président mm. bi def erreur de communication bu yéeme ndax suñu président moom loolu mooy nattoom buy wax amul ñu koy conseiller saa yi wax rek moom lu ko neex lay wax ni mm-hmm. carrément munul dem jëli leen xam nga wax jooju dafa doon wax ju di a dégg mm-hmm. eh, mu mel ni tey jii ñun Sénégal loolu wax jooju Euh, xëy na douma ko du ma du ma du ma blâmer du ma dugg sax ci xawtuwaayu wax ji waye hmm. wax ji ci boppam laay jéem a tas ndax euh, da euh, fay wane ni ñun ñun ñun ñun diaspora bi nous comptons peu pour le Sénégal nous nous hmm. représentons nous représentons beaucoup mais nous comptons peu pour le Sénégal ndax tey hmm. jii ba nga xamni Eh, eh, eh, sunu président taw war a défendre li nga xam ni moo di sénégalais fu mu mënti nekk mu leen di xamal ni leen sénégalais fee ñu nekk du ma di fa dem donte hmm. wax ji mu ne son na ko gën a ba nit ñi comprendre mais dafa ni carrément ñun amuñu moyen pour jëli leen wax jooju nekk wax joo xam ni euh, ñun ñu nekk ci diaspora bi lu mat a la ndax hmm. at mu jot da ngay gis sénégalais bu faatu euh, hmm. euh, communiqué ngay dégg wala mhm. sénégalais nekk ci difficulté sénégalais yi nekk ñooy dajale maanaam euh, bu sénégalais faatoo ñun sénégalais yi ñooy dajale yóbbu bu sénégalais waree dem procès fii ñun ñooy dajale suñu xaalis wutal leen avocat la preuve ñu doon waxal euh, dimanche bi passé ñeenti nit yi juróomi nit yooyu nga xam ne actuellement ñi ngi ci yoon ba léegi ñun fii amagul lenn lu état bi def loo xam ni lu ñu taxaw la woo ñu sax à part ministre Lamine Cissé ndeysaan que je salue beaucoup, il nous a appelés depuis mille ans pour euh, se sincériser euh, des événements que nous avons. mais amul lu état de soutenir ci taxaway manam jël sunu xaliss tey jii euh, signature convention yoy ñuy wax convention hmm. aide à à à au développement lañ leen di jox da ngay ñew signé ñu jox la quinze milliards wala 50 milliards nga jël yobu dem lek sa xaalis le sénégalais ni indi leen mom lañ def Amérique mom lañ def Allemagne dëkk yu bari moom lañ def Italie moo des parce que Italie ñi ngi léewtoo ñemewuñ ko def ñun ñi ñi ñi ngi taxaw di xool euh, est-ce que yaakaaroo ni ñun diaspora bi war jóg taxawaat amaat danañ taxawaay sëñ Pape. waaw sëñ Pape euh, dañuy mettitlu vraiment virus bi nga xamante ni mi ngi mi ngi lëmbe dëkk bi euh, wax dëgg yàlla départ depuis Chine man maa ngi ci doon gëstu sax tuuti. Euh, mais du virus bu euh nit ñi dañuy dañuy yaakaar ni xeyna lu bees la waaye ay atangi ni virus bobu mi ngi fa mais xam nga virus fay am évolution euh, donc par la suite ils se sont rendu compte que ni euh, il est temps que vraiment euh, li ñu yaatal ko aduna bi yëpp yëg ko parce que mi ngi mi ngi def ay ravage te it évolution bi gaaw na bon maintenant sunu sénégalais mbokku sénégalais yi nga xamante ni vraiment ñu ngi nekk euh, en Chine je pense que ni ko dëkk yëpp defee euh, ñun Sénégal waroon nañu am benn taxawaay euh, dem récupérer ji sunu ay doom parce que dañoo demoon uti xam-xam ñenn ñi dañoo demoon koom yóbbu leen te lu ñu amit ci xam-xam wala ci koom ak lu mënti demee seen réew lañ koy indiwaat ña am xam-xamit bu ñu ñëwoon tey jii kan lan moo ñu mën a wax ni le futur président de la république du Sénégal euh, nekkul en Chine en quarantaine actuellement nii dara dara leeruñu ci yàlla rek moom moo xam euh, kenn xamul ndax euh, ci ci ci ñooñu ñu ñu bàyyi foofu kooku mën naa dooni ëllëg président de la république ndax uti xam-xam moo ko yóbbu yàlla rek moom moo xam donc je pense que peut-être le problème en est que notre président def na benn déclaration que ni mënu leen jëli on n'a pas les moyens Euh, mais man je me demande euh, période Ebola bi bi ñu américains yi sonalee ak Ebola nangam nangam te euh, toog benn instant kenn déggatul Ebola bi je pense que Sénégal jëloon na ay dispositions vraiment sanitaires ci ci wàll woowu te it rapport entre état et état war na mën a dem ba ci yenn moyen yi bu fekkee amuloo ko dans le domaine militaire ou bien ci beneen domaine da ngay def recours ci beneen dëkk boo xamante ni sa allié la pour mu jàppale la ci leneen ak leneen euh, donc je pense que Sénégal war nañu mën a def recours ci France ci Italie wala ci Belgique wala ci beneen dëkk pour jéem a xool ndax mënuñu leen abal benn avion équipé boo xamante ni parce que Italie sànq maa ngi un téléjournal mais maa ngi gis vraiment mu des ben jeune bo xamanteni dañ ko mettroon en quarantaine mais si ñi ba légui c'est négatif euh ba Dimaayo mi ngi wax sax ni dinañ déployer ben avion ba ñu wone avion bi avion bu équipé bo xamanteni lepp ngi ci pour que ñu jëli xalé bob mais imaginez l'avion bu jógee Italie di daw ba Chine mais c'est de l'argent mais tubaab bi lan la lan la privilégier fofu mi privilégier bakkanu nit ki donc aspect citizen boobu nga xamante ni américains yi dañ koy def américain boo bu dee ginnaaw raay suba américains yi ñëw taxaw foofu ginnaaw raay boo fa laalee benn américain. suba maanaam xool li xew Kaolack. waaw. ambassadeur bi dafa déplacé wu. ñu woowaa ah. FBI ñu ñëw maanaam commencé diligenter enquête bi. mais loolu mooy aspect citizen bi loolu mooy aspect citoyenneté bi.

alors donc ñoom américains yi man foofu laa leen nawe par rapport ak yeneen dëkk yi. seen doom boole ci européens yi ah. waaw même européens yi. même européens yi parce que xool Italie cinquante sept personnes yi mu njëkk a dem déployer leen ñu jëli avion bi indi leen xam na ni am na ñu fa des mais dana demaat encore jëli leen parce que ñooñu dañu leen mettroon surtout observation ne. Mhm. pour ñu xool ba xam ndax day am développement nangam ak nangam mais gis nañ ñi il est temps que pour ñu dem jëli leen il déploie un avion entier pour ben nit mais Sindhi, déployer avion entier ku ne ni avion euh, bu excès famuy muy da koy fay temps ba def yeb da fay. Mhm. la di dem mais du ndox lay def du air lay daw Il ay la mais quand même euh, dafa am ay ay liñ événement particulier non Événement particulier mhm. man je ne pense pas que suñu gouvernement yi munu ñu mënuñu munu ñu am ay fonds yoo xamante ni pour event yi particulier yi tey jii bu jé Sénégal bu jékki-jékki woon taw mbënn ma sonal waa Gueule Tapée ba kenn mënta génn kenn mënta dugg je pense que dinañ déployer ay ay fonds bu boobaa parce que dañu war a am ay fonds yuy prévoir yooyu parce que événement naturel daf mën na am saa su ne du yow yaa koy sàkku du man du keneen loolu mën na ñëw euh, tremblement de terre mën na ñëw bu ñëwee il faut que ñu déployer ay fonds pour pour pour pour jéem a dimbali ña ña nga xamante ni ci ñooñu la dal. Mm-hmm. mais bu fekkee gouvernement dafay toog parce que sóoraale wu ma woon lii mais y a un problème alors y a un problème vraiment bu fekkente ni budget yi dañ koy voter rek pour que sanitaire euh, santé euh, école ba lii pour leneen ak lii pour sport nangam ak nangam mais te jël championnat yi. jëlal koppar yooyu nga dem ñu déployer ces jeunes laa ñu ñibbi tëjal championnat bi bu dee amuñu xaalis tëjal championnat bi la ñu déployer woon pour le budget yaakaar naa loolu boo ko tegoon Sénégal nga toog waxtaan ak sénégalais yi nga ne leen ah ñun kat amuñu xaalis waaye xam nañ ni lii la ñu mën a def laal ci fii di laal fii laal fee laal fee pour mën a dajale xaalis boobu defal téléthon. Mhm. Massamba ak Mademba dana génne xaalisam def ci parce que suñu solidarité war na dépasser loolu. Mhm. mais bu qui nous nous dit un moment def une certaine déclaration vraiment nous, sénégalais nous on se demande dans quel pays on est mm-hmm. on se demande dans quel pays on est là où fa a un recours pour dem ku la war le defal qu'il <laughs> ne a man duma la defal parce que awma solution bi parce que wax ji mooy loolu man duma dem fay jëli je j'ai pas les solutions ba pare ba pare yóbbu benn avion entier mu dem jëli benn prix en Corée. loolu laa bëggoon a dellu siwaat dem jëli benn daal avion et puis Sangomar sëñ Pape Sangomar kan kan moo ko moom. sénégalais alors sénégalais ba nekk Chine nekk en danger ñu ko mën a jëli ak Sangomar prix ba ñuy jëli en Corée prix boobu moom moo gën sénégalais bi ñuy jëli en en Chine. donc mooy affaire boo xamante ni lu ñuy déployer la affaire boo xamante ni lu ñu metti la nga nekk ci diaspora bi nga bañ a nekk ci diaspora bi loolu ku ko waxul vraiment doo nit ko waxul doo nit kooku nag man samay kàddu la man damay jël samay responsabilité mhm. samay kàddu la loolu ku ko waxul doo nit que ni mhm. sénégal taxaw na nee na mënul jëli ay doomam en chine ku ko naqarluwul vraiment doo nit te dëkk yépp a ngi daw di jëli seeni doom parce que Sénégal gogo amna ay chinois yu fa nek te leer na ma ni chinois yi boo moytul ñu ngi jaabante ci vol yi di def escale di dem ak di dugg biir Sénégal te contrôle ba ca war sax bo moytul ken def ko. Mm-hmm. mais man bi may bi may Sénégal il y a euh, dix dix jours une euh, deux semaines plus ou moins mais man gisuma contrôle bobu j'ai pas vu ça gisuma ko. Mm-hmm. alors de quel moyen on nous parle man gisuma ces moyens là donc il faudrait que vraiment ñu ñu ñu ñu ñu adapté par rapport à la situation yi nga xamanteni mom mo xew dans l'international mhm. il faut que ñu adopté wu ci lolu parce que aduna bi tollu na ci mobilité bo xamanteni nit ñi ñu ngi jaabante nit ñi ñu ngi wër et il paraît man du ma du ma du ma du ma un agent sanitaire euh, sama xam-xam ma ci lolu deug deug waaye nag information yi nga xamante ni ñu ngi koy gëstu di ko liir di xool. Mm-hmm. gis nañ ni c'est pas un virus boo xamante ni day dal nit ki tey nga gis ko tey. waaw incubation bi dégg naa quatorze jours la. voilà. mais mm-hmm. nit mën na dugg Sénégal euh, ñu palpe ko xool nii nangam nangam euh, mu dugg. te virus bi jàpp na ko te kenn du ko xam. Mm-hmm. Donc, ben, je pense que vraiment, il faudrait que euh, le ministère euh, des Affaires étrangères Warne na jël ay mesures Warne war na jël ay mutuayam. Mhm. mais je pense que ah bu kilifaam waxé né est-ce que mom amati nay mutuay? Mhm. loolu nag moom nak ciy ci xawa jaxal. dëgg la li ma ci mën wax rek ci fii ñu ci tollu ni man de bu ma amoon euh, dëgg dëgg. Euh, moyens yi dama man man man naa dama koy jëli man mu amoon moyens yi dama koy jëli waaye la ma la ma ko mën a dénk rek mooy fa mu tëju bu mu fa génn parce que virus bi il paraît dafay attaqué air bi air bi mm. ngay nooyi sëqët seeg ak yooyu yëpp donc mm. nañu tëju nañu tëju fa ñu nekk gis naa benn sénégalais nag mu génn ci mbedd mi di vidéo di filmer di kii c'est bien pour wane ni ñoom ñu ngi ci ci ci ci jafe-jafe

ba ci kanam ñu soog leen di bàyyi ñu dem Sénégal mais quand même euh, suñu gouvernement war na def benn jéego ci ci mbir moomu daal ñu yaakaar naa ne daal loolu loolu noonu ñu ko tëralee noonu ba ñu jëli seen i doom teguñu ko fenn teguñu ko fenn te loolu du cëru gouvernement gouverner c'est préserver gouverner c'est aussi nga prévoir voilà doo bàyyi nag ba ñu dee foofu ngay xaar sénégalais yi dajale seen xaalis aussi pour indi leen wala ngay yónni Sangomar pour mu dem jëli leen Euh, indi indi moom xalaatuma ko ndax yaakaar naa ni euh, kaaw épidémie yooyu bu amee ku lay jox nu la aw su nga génne koor moom du am ndax euh, actuellement boo xoolee fii lañu ñu isolé virus bi mais actuellement ba léegi trouvé ñu vaccin yi vaccin yi ils ont yi que ni élaboré nañ vaccin élaboré ak trouvé bokkul élaboré boo élaboré vaccin da nga koy da koy provaré xam nga essayé ko xool

ndax nag euh, euh, lakkale balaa xoddeeku ko olof di waxee euh, xew-xew boo xam ni maanaam dafa nekk lu yéeme dafay jaadu léeg ci yenn mesure de précaution yi li tax nag man pour alarmer wala dara mais c'est juste pour pour pour prévenir ndax dañuy wax ni par exemple bari virus bi e, ci e, nu muy nu muy nu muy muy propagé woo ci ci yenn xeetu lekk yi yenn xeetu lekk yi ñun ñëpp xam nañ ni daanaka lu ci ëpp léegi daanaka chinois yi ñu dominer monde bi ci wàllu e, ci wàllu ci wàllu alimentaire tey ji xeetu crustacé yi même ñun fii Europe daanaka boo leen xoolee jën yi ñuy lekk lu bari daanaka même buñ ko nappee Afrique lu ci bari day jaar day jaar Chine ñu traité waat ko mu doog a ñëw fii moo xam crustacé la moo xam lu mu mënti doon lu ci mënti am euh, comme ñoom Sayer ak xeetu jóobee ni ñoom Ablaye laay ne su ko ñàkk bañ a def au moins bu ñuy ñu xool togg bi togg ko ba mu ñor ndax loolu bokk na ci liy musal euh, nit ci ci yenn jàngoro yi bu jàngoro nekkee ci dara maanaam nga nga nga nga boo ko toggee ba mu ñor léeg-léeg am na yenn yenn yenn degré yi par exemple virus yi duñ ci duñ ci duñ ci survivre beneen bi aussi ñuy bàyyi xel ci lieu public yi maanaam di raxas suñuy loxo ndax raxasu dafa nekk loo xam ni maanaam buñ koy xeeb gis nga autostrade yi baaño yi bokk na ci li nga xam ni autostrade yi traîneau yi maanaam euh, xeetu fi ñuy jàpp ci loxo yi pour yéeg bokk na ci li nga xam ni mooy transporter yi ci àdduna bi ndax train yi yéen gis ngeen train yi ci dëkk bi waxuma ko pour alarmer mais dafa nekk ay alerte yu may joxe yoo xam ni dañ ci jar ñuy bàyyi xel ndax train yi par exemple da ngay gis ay milliers de milliers de personnes ñoo ciy voyager par jour boo ñëwee nit day soj mun naa tisolité loxoom te te te manilia bi yéeg dem yow nga ñëwaat def même chose euh, boo ñëwee sa kër ñu ne la acca nañu lekk rek nga xe maasu gi wala sa ñablaay euh, yor loxoom dugg ci biir wala raxasu raxasu boo xam ni maanaam euh, dindiwul bactéries yi nekk ci loxoom yëpp day waxuma la sax mm, loolu mais mën naa yóbbu leneen ci biir donc cet euh, ak cet dafa bokk ci doomu aadama loo xam ni daf koy aar ci ci lu bari maanaam ñu éviter yenn xeetu xëy na nag man duma expert ci loolu ba mënu ci wax maanaam ku ci def ay recherche daal dinga ci dégg éviter maanaam fake news yi ñuy wane ay nit di tëdd di say daanaka lu ci bari ay ay ay fake news la bokkul ndax it euh, euh, euh, léeg-léeg bu xewee lu ci bari dañuy exagérer ci ci ay ci ay nouvelles waaye daal lieux publics yi autostrade yi maanaam douche yooyu xeet yi nga xam ni maanaam mbooloo mi dañ fay jaar dafay jaar dafay jar di aar sa bopp ba boo fa boo fa rombee Eh, lepp luy matuwaay nga mun ko def incha allah sëñ Pape ma joxaat la kàddu gi. waaw sëñ Pape moom li li nga wax rek moom prévention rek ndax eh, ñun dañuy nekk ci mbooloo yi. Eh, budul budul sax coronavirus bi ñuy waxtaanee nii waaye booy xool ñun suñu askan sénégalais yi ñu ci bari bu ñu demee hôpital dañ leen di wax ne la am hépatite A ñu ci bari man damay waxtaan ak ay docteur te li may wax lu ma xam la lu may inventé hépatite A bi li koy indi alimentaire la alimentaire bi euh, parfois dañuy xaw a sàgganu ci ñàkk a raxasu yi ñàkk raxas bu set bi euh, nañuy jël suñuy prévention muy daayira yi Euh, daje yi ñuy daje euh, yooyu yëpp dafa am solo parce que tam biir moom la cay dugg du saasu ne nga koy mën a génnee de donc loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax euh, da ngay xool bu bu bu ñu nekkee ci xew léegi sax daanaka xew yi ñuy lu ci ëpp kudd la ñuy utiliser ak yooyu mais parfois da dem ci ci daayira yi mu am ziar wala mu am dara munoo jox ñëpp kuddu dina am ñoo xamante ni loxo la ñuy jël nga teg benn raxasu lu mat 50 personnes bëgg a jóg bëgg ci yor seen loxo bëgg raxasu te kenn ku ci nekk bokkoog sa morom fa nga jóge ak la nga def bi ngay ñëw kenn ku ci nekk dawal nga oto ñëw fa kenn ku ci nekk jël nga train ñëw fa donc yooyu eau de javel sax boo ko ca defee euh, microbe ya fa nekk sax dañu mur eau de bi donc je pense que nañu nañu xolaat tamit ñun ci suñu biir tam yeneen euh, yu ni mel manam dañ ci profito rek euh, à travers waxtaan wi ñu waxtaan ci coronavirus parce que coronavirus la ñuy naam waye nañu xol di def yenn prévention yi aussi parce que tam santé du option do dégg kenn mu ne la man damay obtenir pour Euh, ñàkk am wér-gu-yaram santé moom ku ne ñaan nga ko yàlla te it euh, wér moom jafe na ci surtout jamono bii ñu toll nga xamante ni xeetu lekk yi ñuy lekk xamuñu lu mu doon xamuñu fu muy jóge xamuñu ñu koy produire euh, damay damay damay dem duggi fan yi passé taxaw ci scaphandre yi gis benn meeru tubaab taxaw lu mu jël rek mi ngi xool fu mu jóge lu mu jóg rek mi ngi xool fu mu jóge ma taxaw def ci benn njàngat ma ne ñun est ce que ñun dinañu xool lii est ce que ñun bu ñu demee ci supermarché yi euh, ñun dèjà ña ngay xool euh, supermarché bu gën a yomb bañ nañ ko bañ nga naan ay aldi moo gën a yomb ñii naan lidal ñii naan non non eurospin moo gën a baax ay prix mais est ce que rapport qualité prix bi nga xamante ni moom la ñu war a xool est ce que yooyu ñu ngi koy xool est ce que fañ koy produire ñun xam nañu ko c'est à dire yooyu yëpp il faut que ñu ciy bàyyi xel parce que jamono bi ñu nekk dafa tërëri dafa tërë di taxaw a doy waar loolu rawatina nag feebar yii yii di ñëw nii ci alimentation lay jóge kooku moom feebar yii di ñëw ci alimentation rek lay jóge ak ger ak yi ñëw mm-hmm. waaw da nga ko ci boole da ngay feebar yeeg guerre yi ndax ndax daanaka boo xoolee euh, tey ji coronavirus bi xeetu troisième guerre mondiale mm-hmm. ndax euh, Chine mooy doon deuxième euh, puissance mondiale mm-hmm. il est à genoux tey mm-hmm. il est à genoux son économie est à genoux dem nañ ba nga xamni masque sax amatuñ ko dañ mm-hmm. dañuy ñaan soit ñu lepp ko ñu ñu jaayaat leen ko te ñom ñoko ko doon manam maanaam bi yëpp produire masque <coughs> tey bo xolé euh mu nek lu lu yéme manam maanaam ils sont à genoux boo demee ci dëkk yëpp condominium yi sax dañ leen tëj da ngay gis condominium boo xam ni dañ koy barikaate maanaam waa dëkk waa condominium bi ñoo ñooy dëkk ku dëggul ci ku dëkkul ci ci ci condominium yi doo dugg maanaam ñu indil leen psychose boo xam ni euh, daanaka seen économie euh, ren ji mën naa ni dina laal économie mondiale ndax man te jii man presque ñun suñu catégorie secteur bi ñu nekk mu di mode ak ak euh, pelle foofu rek la ñuy liggéeyee lu ci bari. boo xoolee mhm. ñi grande firme yi ñu bari foofu la ñuy liggéey bloqué mhm. nañu seen seen commande yëpp. nga mhm. xool ñu ne la par exemple lépp luy compagnie aérienne euh, bloqué nañu seeni vol dematuñu foofu ñaata milliards moom moom moom moom la moom la. moom la euh, moom tey jii kon bu ñu xeeb li nga xam ni moo di xew moo raw presque troisième guerre mondiale ndax tey jii. munani limunara ni euh, li mu nar a euh, insidéré ci piilu dëkk bi euh, mm-hmm. la du sax piilu dëkk bi mais pile mondial ndax tey jii mm-hmm. bu ñu la nee tey jii Chine mo daan jënd dette publique gu États-Unis mom moy mm-hmm. le créancier numéro 1 ndax États-Unis danaka sen xaalis liñu liñu liñu liñuy ñu yépp manam Chine moko mo mo mo yor xaalis bobu kon tey jii Chine nekk ay partenaire yore partenariat moom ak Europe tey jii nga xam ni par exemple lu mel ni ay Airbus dem nañ ba nga xam ni waxatuñu sax maanaam jënd bi mais dañu demoon ba nga xam ni mënatuñu leen fournir ñu dem créer foofu ay usine de montage yu nekk foofu euh, euh, France bokkoon ci euh, maanaam partenaire privilégié ndax France par exemple xeetu ay TGV yooyu yëpp partenariat économique donc dafa nekk loo xam ni waxuma la nag Sénégal ndax ñun Sénégal mën naa ni li ñuy dundee yëpp Chine lay jóge mhm. kon tey jii maanaam crise bi ñëpp ko nar a yëg. waaye nag mhm. yëg bi aussi dañu war a góorlu ñun sénégalais yi ñu profité ci changer suñu habitude. parce que bu fekkente ni xeetu lekk yooyu yëpp maanaam a bitim réew la daan jóge te ñu mën a am mboq am dugub am sunu ceeb am yenn céréales yoo xam ni tey jii mënees na koo mënees na koo euh, modifier maanaam transformer dund dund bu seen boo xam ni feebar doo ko am ndax tey jii euh, feebar yi nga xam ni moo moo moo moom la ñuy am yu ci bari ay conservant lañuy jël jël jël produit di leen traité nekk ci ay ay ay ay maanaam xeetu maanaam daanaka dañuy dañu léegi robotiser ndax bari na ay substance yoo xam ni dañ koy def ci ci ci yenn xeetu lekk yu ñuy lekk ba nga xam ni dañuy dem ba nga xam ni dañ koy tàmm ba dootuñu ko mën a bàyyi loolu moo ñu indil yenn xeetu feebar yi euh, ba ba ba daanaka sax ñu bari moo leen di faat loolu nag day aajo bu yi jotee ñu xalaataat ci ba mën a defaraat sunu dund defaraat sunu sunu wér-gu-yaram ba jàmm rek mën see jóg kon sëñ Pape ma delawaat la kàddu waaw sëñ Pape xam nga crise Chine bi euh, ñu bari dañuy naataable ni duñu yaakaar ne rek ni Chine rek lay laal mais àdduna bi yëpp lay laal <coughs>

Eh, fromage parmigiano reggiano bi actuellement nii non seulement daat si sonal na leen mais eh, crise Chine bi aussi dina leen sonal mm-hmm. te loolu dafay am ay ricadute ci eh, liggéey liggéeykat bi parce que tey yow boo en tant que syndicaliste boo demee di waxtaan ak azienda bi ci sous contrat daal la ngay demander ay augmentation ak nangam nangam di taa bi dala naan oh arrêt il faut arrêter quand Mm-hmm. Euh, donc euh, pour nga yokk yow euh, potere d'acquisto bu liggéeykat bi ce sera très difficile ndax condition yooyu ñoom ñool ko permettre tout parce que ya une crise globale boo xamante ni mi ngi fi ditaa bi mënatul def export donc yooyu yëpp il faut que ñu koy sorale ci crise bi di ñaan yàlla rek mu teel ko saafara waaw parce que li nga wax ci Chine en tant que deuxième puissance mondiale Eh, nekk puissance boo xamante ni eh, Amérique ci boppam da koo yorel ay bor non seulement <laughs> Amérique ay bor man dama dama yor gars yi leen ay eh, américains yi de ñoom ñoo ko def apos aposto ñoo ko tey ñoom créé virus bu ni defoon nañ ko fi Afrique ci Ebola. Hmm. mais dana virus kii bi vaccin bi am naa yaqin ni danañ ko trouver. sama beneen collègue ne ma mais ñoom ñoom ay milliards lañu 900 personnes dee <laughs> ci euh, ah, c'est insignifiant mais euh, batute yooyu xam nga ay batute tubaab la euh, parce que jalousie bi ñuy am ci chinois ak développement bi nga xamante ni chinois yi ñu ngi koy développé ak koom bi nga xamante ni am nañu ko moom mooy déranger tuuti européens yi parfois moo tax ñoom chaque fois ñuy waa naan chinois yi dañoo bari dañoo sakkan dañoo nàngam lii il fallait mu dal leen dugg na fii donc si ay milliards nit bu ci 900 cent personnes ko du len wàññi dara. Mm-hmm. mais problème du lool mais dafa yamul fofu rek ndax 900 <laughs> cent personnes yooyu ñaata ñoo am contamination. Mm-hmm. ñaata ci ñoom ñoy voyager à travers le monde. di mm-hmm. yóbbu bi fenen ak fenen ak fenen te it tëj yi ñu tëj frontières yi. Euh, dafay inciter trop ci ci ci économie yeneen dëkk yi. Mm-hmm. dana laal Sénégal dana laal Europe dana laal Italie gii. Mm-hmm. nekk dana laal feneen ak feneen. Mm-hmm. donc ñun ñii di ay liggéeykat daf ñuy laal donc on est pas épargné par ce ce virus. Euh, li ci nekk nag mooy au-delà de laal bi nga xamante ni sur le plan économique dinañu laal loolu ñuy waxtaanee rek di prévention bi man damay insister toujours ci prévention bi kon nañuy xool li ñuy lekk. ñuy xool bu baax li ñuy lekk. te yii daf ñoo war a jàngal ci yu bari ñu gën a gëm suñu consommé local mm-hmm. waaw nañu gëm suñu consommé local mais ñun bala ñuy am lu ñu neex ñu jël mm-hmm. leur ñu parfumé bu jógee feneen ak feneen bala ñoo am lu ñu neex ñu jël karité ba nga xamante ni jóge na feneen ak feneen bala ñuy am lu ñu neex ñu dem jëndee jën ca chinois ba mm-hmm. bañ ko nappee mu jógee Sénégal daanaka daaw la def trajet bi mu def yëpp ba jaar Chine ba dellusiwaat fii ci ñun mujjee ci ñun. Mm-hmm. kon nañu xoolaat yooyu man ak sama moroom ak ñëpp te it dafa am euh, ay man fan yële ci ginnaaw dama dem benn séminaire boo xamante ni dañ doon wax Mercosur Mercosur maanaam Brésil dafa am benn dëkk boo xamante ni moo ëpp li muy produire ci ginaar ci àdduna bi. Mm-hmm. naaram yu bari. moom la ñuy indi fii en Europe. Mm-hmm. te dëkk boobu ña fa nekk ñëpp a feebar. <laughs> ña fa nekk ñëpp a feebar. koo ci gis biñ defee documentaire bi wane image yi wane vidéo yi et tout. bi ñu paree xam nga en général vidéo après vidéo yi nit ñi dañuy applaudir tàccu. mais mm-hmm. keroog ñëpp dañoo ni tekk mel ni dañ leen a jam paaka ci biir. Mm-hmm. c'était tellement émouvant ba ma noppi xaw da lay tiital da nga naan man lan laay lekk. benn éleveur bu xamante ni dañ koo euh, dañ koo interview ñu ne ko yow nan nga commencé liggéey bi mu ne moom li mu commencé matul dix ginaar mais dañ ko indil ay produits phytosanitaires yoo xamante ni da koy jox ginaar yi. ginaar yi hmm. dañuy yokk. antibiotique sax dañ leen koy jox. di di yokk yokk bu bu bu doy waar boo xamante ni yow boo koy seetaan da nga naan non c'est pas vrai. gis nga waa ji boo gisee loos ngaa ni Pape seetaan naa documentaire bu mel noonu mm-hmm. ñu wane ginaar bu am quarante cinq jours mënul taxaw mm-hmm. ndax masse corporelle am mm-hmm. tànk yi antanu ko waaw ah. bi mënul taxaw produit phytosanitaire yi la dund quarante cinq jours mënul am poids boobu ah. léegi yow ginaar boobu boo koy lekk dangay ngay dem ba antibiotique dootu la mën a faj parce que sa yaram yëpp antibiotique lay nekk. d'accord gis nga sëñ Pape. Mhm. man dama jóge ci benn société boo xamante ni dañuy defar mboq. Mhm. Euh, maïs animalé la ñuy defar. bokkul ak maïs bi ñuy lekk. Mhm. gis nga maïs animalé bi. jëloon nañu ñoom dañ koy conserver mën nañ ko denc ci magasin pendant dix ans. boo ko génneewaatee ni mu meloon la mel. moom la nag yi di lekk. moom la nag yi di lekk. ci ëpp OGM lay doon. ñun bu ñuy def suñuy ziyaar suñuy nàngam ak nàngam nag yooyu lañuy dem jëndi cest à waxtaanuñu waxtaan woo xamante ni vraiment dañuy alarmé alarmé wuñu déedéet mais nag dañuy dañuy euh, dànkaafu nit ñi pour que nañuy xool xeetu lekk yi ñuy lekk ndax gàllankooru ci wér gi yaram yi am yi ci bari xeetu lekk yi ñoo koy indi mm-hmm. xeetu lekk yooyu du ñun ñi rek ñoo am problème boobu tubaab yi tey dañoo am problème yooyu ndax gis nga matière matière yi mm-hmm. ñuy déglu di liggéey ci matière yi xam ne dina xam bu baax li may wax ndax man damay dem ci matière yi matière yi fii à part man maa leen di suivre et mm-hmm. connais bu baax mm-hmm. alevament yi dañu am des problèmes parce que mayaale yi niñ doon ñëwee niñ doon juddoo judd bi dafa yéex ñu leen di jox ay produits yoo xamante ni dañuy ponkal ponkal mu rëy camions yi dañoo am nombre de mayaale yu ñu war a def camions yi dañuy am problème léegi pour contenir ce ce nombre. ndax parce que mayaale mayaale ni muy toll ni muy gonflé. Mm-hmm. soo suñu radopiare woo dootuñu am espace ci biir camion bi. Mm-hmm. loolu moo indi nag crise de la de la de la viande euh, du porc actuellement nii. Mm-hmm. loolu moo dem ba indi daaw même le euh, certificateur. bu euh, euh, mayaale yi di nekkoon fii à Parma di euh, Ipico di Parma Qualità seetaan ba nga xamante ni cinquecento mille mayaali yoo xamante ni dañ leen a tarokaare Ipico actuellement tëj na beneen certificato lan mooy tarokaare maanaam xam nga buñ leen indee prosciutto bi Parma lañ ko war a defaree prosciutto di Parma Parma lañ koy defaree mm-hmm. mais dañ koo jël defaree ko feneen ak beneen xeetu mayaale boo xamante ni xamuñu lan lañ leen lan lan lan vétérinaire yooyu yan yan vétérinaire lañu. lan lañu garanti daal maanaam. waaw mënuñu ko garanti. cinq cent mille mayaale. Hmm, waxal sayer mu mooy tuddee. donc loolu. <laughs> dafa dem ba inspecteurs yi ak waa finance dañoo obligé. tëj IPIC. IPIC dafa dañ ko tëj indi beneen certificateur. ren jii la ñu indi certificateur bu bees. Mm-hmm. loolu déjà xam nga du ñun rek ñun ñooy souffrir loolu tubaab bi ci seen bopp ñu ngi souffrir aussi ci alimentation bi défaut d' alimentation bi am actuellement ci àdduna bi. Mm-hmm. da nga gis borom tool am un hectare su ko jiyee ba pare ñaa euh, nangami tonne la la la la def bu déwénee sa client ne la non dama soxla yeneen nangami tool tonne mu dem uti yeneen produit def ko ci tool bi. mu am mu am produit mu am tollin boobu. mu am ton ton ton bu bari bob donc affaire yi da ngay dem ba yow doto comprendre man dama tek sama beut dama tek sama beut mboq bi ñu doon defa dafa am produit buñ ci doon def bu tuddu force mm-hmm. c'est un produit américain force ku dem ci internet bi di nga ko gis da ngay bind produit phytosanitaire force mm-hmm. dina la wax force li muy def force biñ ko defee ci magasin wis ko fa nii rek janax ya fa doon wër noonu yëpp a dee janax ya doon taxawaal noonu. loolu yéen magasin bi ñu ko daan def fii da ngay dawal sa carrello ñëw ba ci magasin bi kas masque nga daan takk masque. dañu daan tere sax ñu suñu yëre bu ñu paree ñu sol ko ñibbi ñu ko daan tere te li ma lay wax nii 2008 la woon 2008. Mhm. donc imaginez 2019 ndax créé wuñu fi yeneen yu gën a garaaw. waaw. donc moo tax gis nga. ndax boo xoolee Bayer Bayer euh, industrie kii boobu allemand boobu daanaka yooyu rek lay liggéey. waaw. bàyyi maa ngi xool maa ngi xool benn documentaire nga xam ni ñu ngi ko ñu ngi ko jiraaree Sud America. Mhm. ci dëkk yi ñuy defaree banaana nga xam ni daanaka banaana bi ñuy lekk fii yëpp foofu la jóge mhm. maanaam euh, euh, dëkk boobu ñëpp a feebar ñoom it même chose. parce que tey jii bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu defaree yëf yi benn avion moom la ñuy jël mu romb kay nga xam ni population bi même fi ñu dëkk sax daf jaar di sotti seen seen seen seen seen xeetu euh, fertilisant yooyu yooyu mm-hmm. daanaka moo tax parce que mooy rey mooy rey parasites yeeg yooyu yëpp daanaka moom waaye nag euh, doomu aadama du ko fekkee ndax noonu mm-hmm. muy reyee parasite àdduna bi Euh, dafa am cycle normal bu muy dund sax yi dañu am mhm. seen wàll maanaam ku ci nekk danga am wàll woo war a def dëgg tey jii sax bi bu amul lu mu lekk euh, loolu mu warul woon lekk day doon aw lor boo xam ni dafay ñëwaat ci doomu aadama mhm. mutation yooyu mooy dem ba tey jii boo xoolee daanaka feebaru daanaka xeetu coronavirus boobu noonu la parce que ay mhm. ay ay gènes la yuy dem di muté di muté di muté di muté ba dem ci mala ñu lekk ko mu doog a ñëwaat nag ci doomu aadama. waaw ñoom lañ ko waxee sax nag dëgg-dëgg. dafa mel ni dafa mel ni tey jii gars yi dañuy xeetu seer yi ñoom dañoo mel dañoo tiit dégguma kenn yëngatu tey <laughs> tey jii auditeurs yi. yi bu ñu tiit ñoom ñoom seer ak xeet ñoom Bas Diop ak sëñ Ablaye <laughs> dégguma ci kenn. gaa ñi gaa gaa ñi dañuy teewlu dañuy teewlu rek. waaw ah, jërëjëf waxtaan wi de am na solo lool vraiment dégg gisuma sax temps bi mel na ni fukki minute rek moo ñu dese. waaw waaw maanaam euh, jar na daal euh, soñaat gaa yi ñu xool bu baax surtout nag xeetu màggal yi nga xam ni dañuy jënd quantité toujours dañuy soxla lu yomb gaa yi ñuy wax fu mu gën a yombee rek euh, hmm. loolu nawet war nañu war nañu dépasser cadre boobu léeg-léeg di di am pour seet qualité yi xool li ñuy jox askan wi certifié ko waaye yàkkamti am dépense bu nangam rek maanaam na na na na na na na na na na yomb te te bari rek loolu moom mun naa ñàkk donc dafay jaadu léeg-léeg ñu xool lan lañ ñuy jox ak ndax it mënees na ko mënees na koo jëfandikoo wala ci yan condition lañ ñu koy jox ak yooyu yëpp daal ndax nag biir moom lu ci dugg ah du neex a génne bokkul ak Euh, pot bu ñu tëj boo xam ni da ubbi xoolaat def ni ngay def déedéet lu xës bu dugg moom balaa moo génnaat di nga daj euh, lu mburu dajul sa tànn loolu moom lu lu mat a bàyyi xel la waaye sëñ sëñ sëñ bi bëggoon naa ñu ñu ñu ñu ñu ñu waxtaan euh, fàttali gaa yi itam xam nga ni jamono ji ñu ngi ci disoccupation agricole yi comme li ñu dese bariwul ñu ñu ñu ñu ñu jaar ci benn jaar bu gaaw rek fatali mbokk mhm. yi sous-occupation agricole ñi nekk ci secteur agriculture bi ak xëy na ISE ak yooyu yi nga xam ni moo fi nekk d'actualité balaa balaa ñu tëj sëñ Pape ma joxaat la kàddu gi waaw xanaa fàttali mbokku taalibe yi rek ak mbokku sénégalais yëpp euh, fàttali leen disoccupation agricole yi moom ubbi woon nañu ko depuis le premier janvier euh, mu fas yéene tëj nag le 31 euh, mars. donc képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci agricultura euh, agricultura nag du ki nekk ci tool yi rek foofu it <laughs> dañ ciy leeral leeral tuuti ndax mhm. am na ay société yoo xamante ni dañuy appliquer contrat coopération agricole mhm. waaw coopération agricole boo fay liggéey am nga droit dugal di coopération agricole parce que en général ñiy liggéey ci coopération agricole euh, stagionale la ñuy nekk mën nañoo nekk stagionale am contratto a Ciamata di liggéey euh, deux à trois fois la semaine et donc yàlla mën naa dogal ñu am réquisites yi mais li ci am solo rek mooy yow boo amee doute ci man ban xeetu contrat la am parce que ñun sénégalais yi ñu ci bari duñu ñu xool sax suñu contrat ñun li ñuy xam rek mooy man may suudee wala man damay yëkkati lii wala man damay def lii wala man ditaabee laa nekk mais sa contrat c'est important pour nga xam sa contrat lan ban façon contrat la ak yan droit nga am la la yoon may ci sa biir contrat donc di occupation agricole ki nga xamante ni dafa nekk ci naki yi ki nga xamante ni dafa nekk ci alevament mayaale yi ki nga xamante ni dafa nekk ci euh, topato fas yi ki nga xamante ni mi ngi ci tool yi ki nga xamante ni mi ngi ci coopération agricole ci biir fabrique bi parce que coopération agricole ñoom ci biir fabrique bi la ñu nekk manam seen liggéey liggéeyu industrie la mais contrat yi ñuy appliquer coopération agricole lay nekk donc ñoom nañu jege si rek ñu expliquer leen wax leen le plus rapidement possible euh, réquisites yi nga xamante ni moom la ñuy laaj parce que euh, c'est vrai dañuy wax ceen tudduwe jornaate cent deux jours euh, ci deux ans yi maanaam deux mille deux mille dix neuf deux mille dix huit ngay laaj cent vingt cent deux jours yooyu léegi nag lañ lay fay mooy li nga liggéey ci deux mille dix neuf bi léegi cent dix cent deux jours yooyu il n'est pas da ngay am cinquante et un fële cinquante et un fii mën nga am benn jour fee sax ak euh, cent un jour ci ci ci beneen at bi hmm. mais lu mu ci doon rek boo ñu indilee boost paga yi ñun mën nañ koo xool wa ilaa nga def euh, strato compte contributivo boo demee ci patronat yi ñu stampare la strato compte bi ñu xool jornaate yi nga am dinañ la ko mën a dugalal te ci biir disoccupazione agricole bi boo koy déposé boo amee assegni familiale mën nga ko demandé waale euh, dañ la koy fayaale moom xeetu disoccupazione la boo xamante ni benn yoon lañ la koy fay ñu IMS day commencé fay à partir du mois de juin fin mai début juin lay commencé fay jëm ba août bu passé août nag ku jotul da ngay delluwaat nga ñëw ñu xool peut-être dina am problème parce que IMSS ñi nga xamante ni fayu leen ñun def ñu yónnee liste boobu wax ñu lan moo manqué parfois nag ñun dañuy téléphoné du ñu jot waa ji dem na Sénégal bi yàgg. Mm-hmm. lu ci ëpp lu ci ëpp nag ay parti te yooyu. voilà am na ñi nga xamante ni bàyyi xel. ñi nga xamante ni dañu am parti te IVA am na benn benn fiche boo xamante ni dañ leen koy jox ñoom ñu def benn autodichiarazione Mhm. déclarer ni utilisons pas utiliser partita IVA bi. Mhm. déclaration la warul fausse. parce que bu fausse, non seulement dans la tek daan buñ la la ko la ay mhm. déclaration euh, fay dina IVA. utiliser wu donc du du doon problème quoi. mais familial yi surtout c'est important parce que nga jëlul moom lañ lay fay ci biir disoccupazione bi année bo année boobu yëpp moo tax c'est important quoi kii beneen bi nga xamante ni aussi IMSS daf koy imposer à part euh, feuille banque bi ngay dem banque bi tim sa banque timbraare ko nga indi ko SR 163 bi. Mm-hmm. Euh, bu fekkee da nga yor jabar ci réew mi fii mu am codice fiscale wala euh, nekkul ci réew mi sax yow booy def demande disoccupazione na nga ko leeral. parce que INS day bëgg a xam ndax kii sposato non sposato wala yor na euh, jabaram am na codice fiscale parce que day bëgg codice fiscale bi ci demande bi kooku aussi c'est important euh, sénégalais yi am nationalité yi am nationalité italienne te demandé woon euh, assegno familiare pour seen njaboot yi nekk à l'extérieur aussi tey liggéey ci agriculture di def demande bi mën nañ ko demander aussi ñu fay leen ko kooku tamit c'est important aussi bon li ci des rek mooy euh, am di nga trouver wu parfois liggéeykat boo xamante ni dafa liggéey imparté ci année bi euh, agricultura duwe anni fa liggéey na agricultura mais ci desitu at bi mu liggéey tuuti ci industrie foofu ñun boo ñëwee dañuy xool prévalence bi fan la nekk hmm. parce que ni ñuy compter giornate in agricultura bokkul ak ni ñuy compter settimane contributive euh, in NAS waaw mm-hmm. donc différence yooyu c' est un peu technique. Mm-hmm. Euh, mënuñu ko expliquer c' est un peu difficile. Mm-hmm. moo tax boo ñëwee ñun dinañ xool prévalence bi fan la nekk bu ko defee ñu xool ndax euh, disoccupation agricole nga war a déposer wala naas bi nga war a déposer. te loolu euh, daaw dafa ma arrivé dama am ay sénégalais yoo xam ni dama leen a dugalal. mais dama gis ni liñ leen dagg ci IRPEF dafa bari. parce que dañ mhm. leen a laajoon seen passeport ñu gis ni dañoo génn lu yàgg yow mi nekk ci catégorie bi moo tax ma ne naa la ko laaj aw laaj la bu ma la dencaloon maanaam mhm. est-ce que par exemple ñi nekk ci secteur agricole bi li ñuy génn yàgg euh, mhm. dafay dafay dafay dafay def dafay dafay compter ci ci ci ci kii bi non du ci compter seulement ñiy def disoccupation agricole dafa am benn facteur bu ñuy fàtte xam nga liggéeykat Italie bon Italie laay mën a wax mënu ma wax beneen dëkk mais liggéeykat Italie boo dugalee disoccupazione cela veut dire que am nga ñaari kudd mm-hmm. am nga obbligo def dichiarazione dei redditi dichiarazione dei redditi waaw voilà léegi ñoom sicuramente am nañu omission boobu parce que bu ñu defoon dichiarazione dei redditi danañ leen xayma ci taxi yi ñu fay parce que xam nga euh, stagionale bi stagionale en général fay bénéficier aux gravi fiscale Et mhm. et comme am obligo parce que da dañ dañ koy considérer comme ko xamante réditom peut-être du egg 000 euros. Mhm. légui nak gravi fiscal yoy muy gagné fini anno état mën na gis ni ki réditom supérare na 8000 euros et amoon na obligé def déclaration des rédits yi. Mhm. te donc. pochi contributi, poche tasse la doon fay. waaw parce que daanaka dina am 4 quasi quatre mille euros yoo xam ni dañ ko koy. exonéré ci ci voilà léegi nag bu defee di que mm, disoccupazione agricole. IMS tamit day def valutazione am. Mm. parce que comme juin juillet lañ ko koy fay dina fekk période c'était trente bi passé. période mm. boobu nag moom bu passé yow euh, uni ko ngay mën a def. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga euh, mën na am konguwaalio bi foofu lañ ko ko defee foofu moo tax mu doon dëgg sërëx ci moom ñu dagg ko IRPEF bu bari waaw parce que dama gis daal benn waaye dagg nañ ko presque sept cent et quelques euros waaw <laughs> moo tax dañ ko konguwaaliyaare ci disoccupation la bi te IRPEF lañ ko bind bon man mënuma ko mënuma ko expliquer parce que duma fiscaliste donc euh, euh, ma yaakaar ne xëy na parce que dañ ko laajoon passeport am pour xam ñaata jour la génn hmm. Ah, non dañ ko ah, et puis y aussi une situation parce que bu fekkente ni yow ci biir ne bi da nga euro di Renzi pas mm-hmm. xamna dinañ parce que euro yi dafa wara à partir de juillet mm-hmm. ñëwaat ak yeneen émission waaw fofu vous tam bari na mm-hmm. ay yu ma euh, bari na ay confusion fa def ndax xam nga déjà coût fiscal bi moy lolou ngay wax nonou mi ngi wara départ le premier juillet. Ah. man amna kuma ku ben envoyé audio nima hmm. euh, badante yi commencé nañ len ko fay. déjà hmm. man len mais badante kàppoom du manam datorem du fay ay coût fiscale datoré bi contrat bi muy fay parce que ñooñu en général euh, euh, du ñu fay ben taxe. Hmm. bu ñu deful sept trente mënuñu récupérer dara même bonus rente bi sax. datore bi du hmm. leen fay mu ne ma hmm. non am na ay changement nangam nangam parce que tam euh, même chose la rek ak euh, li ñu defoon ci ci ci sanatoria bi dafa am ñu commencé di joxe ay notices yoo xam ni vraiment maîtriser wuñ ko ah, xam naa ni loolu moom day jaar ñu def ci émission spéciale pour waxtaan ci pneu hmm. fiscal bi euh, catégorie yëpp ñi mu laal ak ci naka naka lay naka lay defee impact ci ci ci liggéeykat ba jox at waaw non yooyu fisco bi moom xam nga fake news yi hmm. da cee bari moo tax di ci tey nii dafa am solo quoi parce que lu mel ni otante euro yi xam nga gars yi dañu bëgg xaalis otante euro boo leen ne otante euro yi mbusta paaga rek ñu ne la def ci léegi hmm. nag intre yaa ngi liggéey yow ne deux mille dix-neuf ñu jox la otante euro yi même bu matul neuf cent soixante euro yi nga war a am année bi hmm. nga dem def déclaration des rédits c'était trente ñu laaj la ndax laajoon nga ko nga ne kii ñoom ñu xool gis ni des na ñoom it ñu laajal la ko nga demandé waat encore ottante euh, euro yi ci biir disoccupazione bi loolu IMS da koy récupéré ji de primo poi. waaw ah, donc yow ëppal nga neuf cent soixante euros moo tax ñu bari bu ñu dugal disoccupazione agricole dañuy renoncer ci ottante euro yi. Mhm. waaw dañuy wax rek defal ma detrazioni fiscali per lavoro dipendenti basta. Mhm. comme damay def c'était trente bu ma demee ñoom dinañu ma xayma par rapport ak njaboot gi ma yore taariku yi ma yore et cetera et cetera. Hmm. ma autant euros yi comme bonus la. joxoon nañ ma ko bi may liggéey su amee lenn lu des après su ma defee c'était trente dinañ ma ko joxaat après foofu mu yem fa. donc usurpation bi du ma ko ci laaj. foofu it gars yi nañ ci attention quoi parce que gis nañ ci ay cas yu bari daal. Hmm, hmm, tubaab bi jox ma dalay jox. waaye bu la xaymaa ba xam ni da nga ko ko war a delloo foofu lay méttee. Mhm, mhm. waaw baax na xam naa ni xam naa ni li olof di wax rek li li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li mhm. donte tey li ñu waxtaan ci wàllu ndawal moom bari na lool ndax xam naa ni tey jii moom jóoween yi seen i <laughs> seen xol neexul ndax li ñu leen wax tey jii mel ni sëñ Ablaye nga yor tey neexalu leen xam naa ni Euh, dañuy dañuy dañuy dañuy euh, dañuy dañuy leb yëpp rek maanaam daxaat ko ba beneen jamono incha allah euh, xanaa rek ma joxaat la kàddu gi kon sëñ Pape nga nga tàggoo gaa yi. waa jërëjëf Cheikh bi jërëjëf xanaa di kontaan rek moom rajo bi saa su ne fi ñëwee mbégte rek lañ fi lañ fiy am di jéggalu bu baax nag kaddu kàddu yi wax dëgg yàlla ndax moom dañuy dañuy jéem rek Mm-hmm. lu ci jub rek yàlla suñu borom la lu ci matadi rek suñu lu ci dëng suñu ñàkk ak matadi la mm-hmm. eh, eh, di ziar mbokku taalibe yëpp di ziar eh, vraiment auditeurs yi gis nañ ni tey wax dëgg yàlla dañ doon teewlu mm-hmm. xam naa ni kalaasu sayeer gi boo demee ma ngay xool ba ban supermarché la war a dem suba pour <laughs> pour nduggi <laughs> pour xool xéwal yeeg yooyu. Mm-hmm. waaye li ñuy wax ni rek bon euh, yëkkatiwuñu benn alarme. Mm-hmm. mais dañuy wax rek nañu nañu xoolaat taxawaay yi nañu xoolaat comportement yi ak euh, euh, maanaam l'éducation sanitaire c'est important. Mm-hmm. parce que biir moom li cay dugg moom dafa war a doon lu sell. comportement ak set ak. yooyu dafa bokk ci ci ci ñun dafa bokk ci diine diine sax ci boppam moo njëkk taataan loolu euh, ci set mhm. donc te comme feebar yu bari dafay génn ci yu ni mel euh, nañ ci bàyyi xel bu baax euh, di jël suñu matuwaay mhm. xob bi bala ngaa lakkale la olof di wax donc mieux vaut prévenir que guérir mhm. moo tax ñuy joxe ay xalaat rek ci loolu mais du benn alarme nag wax dëgg yàlla boo xam ne dañ koy joxe Mm-hmm. di tàggu ñëpp di nuyu suma mbokk waa CADES yi. di leen mm-hmm. mm-hmm. eh, eh, jox ñëpp dox daje beneen émi dimanche ci yeneen émission incha allah. jërëjëf sëñ Pape jërëjëf mbokk yi xam naa tey jii moom vraiment eh, waxtaan wi amoon na solo lool wax dëgg fa yàlla waxtaan nañu ci taxawaayu dëkk bi maanaam ci xew-xew yooyu nga xam ni moom la ñuy wax. jëm ci may kayit euh, waaye it waxtaan nañu ci jàngoro jooju nga xam ni moo di coronavirus euh, nekk euh, benn xew-xew bu jaxase àdduna bi lool sax xam naa ne bi ñàkk dinañ ci gën a dellu si buñ ci amaatee yeneen information di ñaanit suñu borom dàqal ñu ko ndax ak jullit moom lenn rek la mën su ko dara dalee wala moo def dara lu muy lu muy def mooy jàkkaarloog euh, suñu borom euh, ñaan ko talal ko ay loxom ñaan ko euh, ci loolu it dinaa ci def benn observation bu ndaw rek ndax Chine moom ñëpp xam nañ ni mu toll waaye ay jamono ni ni daanaka mu mel ni yàlla moom li muy def rek moom rek moo ko xam aduna ngi ay jamono ci ginnaaw aduna bi yëpp jullit yëpp ñu ngi toog di métitlu euh, constat la bu ma def rek di métitlu seenu taxawaay euh, chinois yi ci ni ñuy def jullit yi foofu euh, mu demoon sax ba nga xam ni daanaka bari na ay dëkk yoo xam ni dañ doon tere soxna yi ñuy sol di muuru di tere jullit yi ñuy pratiquer am nañ sax ñuy wax ni gis naa ci benn documentaire ay camp de concentration yoo xam ni manam euh yi rek lañ fay yobbu di len leklo ay mbam di len nanlo sangara manam pour pour reconvertir len mom lañ camp de rééducation c'est des choses qui existent euh, kon mu melni ni tey jii xëy euh, euh, ñu gis jullit fa lol fa lool tey jii euh euh day jaar ñu ñu tok xalaat ci def ci njangat waye ñaan suñu borom jàmm xew ci àdduna bi ndax jàmm moom euh, mooy mooy mooy mooy buntu maanaam euh, xéewal ndax nit ki moom lu mu mënti am bu amul jàmm ak wér rek amul dara kon yàlla nañ suñu borom defal jàmm defal ko àdduna bi yëpp euh, di ñaan lépp loo xam ne rek wax nañ ko fi mu di njuumte yàlla nañu ko suñu borom jégal ngeen xam ni doomu aadama moom matul waaye lu fi jekk rek ngeen xam ni dimbalu suñu borom la sunu borom moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy dimbali nit ba su waxee nit ñi rafetlu ko waaye it wala léeg-léeg bu juumee ñu xam ni juum la rek kon ñu leen di sant bu baax di gërëm suñu technicien Modou Mbaye Thiam Baye Fall waaye di ziar euh, suñu mbokk yi nga xam ni ñoom la bokkal rajo bi sëñ Ablaye Diop euh, euh, sëñ Ibrahima Ndiaye moom it gis nañ ko dégg ñu ngi koy ziar waaye di sunu suñu mbokk yi jóobee ni ndax tey jii dafa melni euh ñom ñëpp ay réagir ma ngi gis gaay ñom ñoom Modou sëñ fallu <laughs> mbokk yi jobeen yeb ñi ngi ñi ngi fëgg ci Facebook bi eh, ndax mom gaay mom bo waxe waxi dawal rek mom day melni euh da ngay yobbu fi ci bari waye it ñi ngi ziar suñu mbokk taalibe suñu jëwriñ sëñ cheikh Cissé di len sant di len jox dox daje dimanche ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh نَطُ نَ دِيوَن وَرَسَدَتِ النَّادِكَ